والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والله أحمد بكار من أنا جوي مدينة باي دي دومي مدينة دي دومو دومي شيخ إبراهيم ياس من سيدة رقية الحاج عمر بن عبد المن آه، نيو تاي بور فيكي جوتاي غامو في تي هانو فيكي في سي مبوك تي يالا suñu mbokk ci Mawlana Cheikh Ibrahim ee, suñu mbokk ci tariqa Tijaan pour saafuwante ak ñoom waxtaan ak ñoom ci yàlla layaante biir xool seeni xar-xaram ñoom tamit ñu xool suñuy kanam yaakaar nañ ne loolu yokkute bu baax dana ci am ndax jotaay zikar la jotaay waxtaanee dundu yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenentu bi nee na àdduna yàlla rëbb na ko yàlla këes na ko ak li ci biir ba mu des ñi def zikr ñi def remembrance of Allah di fàttaliku yàlla ak ñi nga xam ne ñoo méngoo ñooñu kon nag ñun buñ dajee pour def jotaay fàttaliku tudd yàlla fàttaliku yentu yàlla Muhammad ñi nga xam ne yàlla moo ñuy wax ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana you have the best pattern of conduct from the messenger of Allah am ngeen best exemple ci prophète Muhammad sallallahu alayhi wa kon na ngeen ko jéem a roy suñuy sëriñ suñu yaakaar Cheikh Ibrahim wan ñu ne pour nga mën a roy yenent bi da nga ko war a xam loolu tax mu daan sonn ci gàmm di toog twelve hours di wax ci olof la làkk biñ nàmp daanaka du dugal benn baata arab sax mm-hmm. pour massis yi nit ñi nga xam ne sax seen jàng mën naa am soriwul ñu mën a xam dunu yenent bi sallallahu la ko dalee ca maamam ya ba ci ni muy juddoo ci diggante ñaari waajuram muy Abdoulaye ak Amina ba bañ koy yónnee baba mi muy 23 years yi nga xam ne yépp alxuraan a ngi asaman jóge asamaan suuf ak asamaan di jokkoo yàlla di ñu woon naka la bëgg ñu mel naka la bëgg ñu jaamoo ko loolu yëpp daanaka dana ko summarize ci benn guddi jox ko nit ñi tradition bu rafet boobu nag moom la ñuy jéem a roy ndax moom daf ne bu gën ci mbindeef doxee ma dox topp ko bu taxawee dootuma dox ñun nag dañuy topp ci ay tànkam comme du taxaw ñu ngi ne dox bi dana sori di ko jéem a roy ci li nga xam ci la jeexal dundam yëpp nee na moom dundam yëpp mooy tagg yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa wala di julli ci moom euh, yonent bi ci pré-éternité ci njëlbeen njëkk dara di feeñ dundam yëpp rek moo doon di sant yàlla di ko wéetal yàlla di julli ci moom mu ne moom bàyyi muy tag muy tagg yonent bi depuis booba depuis ñuy agsi fii ci barab yi feeñu waay kon mu ne fadal madhu zaak alhamdu suma tagi gi nak moy mooy sant googu rek pour won na ne li yeb ci walu sant yàlla la bok ndax sant amna sant jëf amna sant wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñu indi alquran yàlla di wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa xeyrun mimma yajmaun ku bëgg bëgg bëgg wone sa contentement na nga bëgg ci yërmande yàlla ak ci ngeenelam loolu mo gën ngeen daj alal ngeen mën di dajale looloo ko gën القران خبر نيو ني يونت بي موي يرمان يالا دا يالا موكو واخ سي القران وما ارسلناك الا رحمه للعالمين i have not sent you but as a mercy to to, to all creation باي مون عالمين لب دوغنا سي لب لي مبيديف رك دوغنا سي كون يونت بي يرمان لا دوبور جولين ني رك مي بور لب لو يالا بيند ييفر بيك ربي الله بيك مالا بيك لب لو ام رك سي غنيل يونت يالا يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم واي يونت تو تيمي بريفيليج يالا mooy di privilège of Allah kon ku bëgg am ngërmaane yàlla dangay topp yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi ku bëgg a war sa ko wane sa kontaante alquran dina na ko wane ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Cheikh Ibrahima di wax ne fa kullu man jaada bi bi shay fi mawlidil muxtaari ay karamatan li xayri xay fa innahu kaman wali képp koo xam ne spend nga dara ci guddi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam participer ci ci sa alal wala ci sa doole wala ci sa teewaay dafa mel ni yaa ngi dund ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam méngu ko bàyyi mu ne ci fonk gàmmu ak ci magal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la rawee ñëpp ci la nekkee xutbu ci fànn bi nga xam ne mooy maarifatu billaahi nga xam ne képp ku xam rek moo la nandal mu ne loolu yëpp li ko ko may mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko express ci wax ak ci jëf dundam yëpp yonent bi la ko jox mu ne ay doomam yonent bi la leen tuddee ay taalibeem ak njabootam jox na leen àddina àddiyee yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gift lañ te prophète Muhammad kon ñun moomuñ suñu bopp sax yonent bi mooy moo ñu te dëgg-dëgg ku xam-xam dëgg xam ne moom rek mooy sang kon nag képp koo xam ne yaa ngi koy màggal wala ngay julli ci moom wala ngay teral ko yow dafa mel da ngay yalwaan rek ay tëb ndax yàlla lépp lu mu am jox na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu ne daf ko jox kem yaatuwaayu rubuubiyatoom mu ne may na ko ba may ko jëmmam kon ku bëgg a àgg ci yàlla da ngay jaar ci bunt bi nga xam ne ku jaar ci beneen bunt lu may bunt yentu yàlla Muhammad yow doo àgg te doo am doo jëriñ ni koy defee fu ne fu ñu oo ci àddina pour euh, jéem a contribuer ci suñu little knowledge ci tasaare message bi nga xam ne mooy message yi Cheikh Ibrahim nga xam ne du dara lu may alquran ak sunna jéem a suuxat mbëggeel ci xol yi ndax mbëggeel gi ñu am ci suñu sëriñ xam-xam gi daf koy suuxat ki nga topp nga xam la mooy message am lan moo doon dundam loolu dafay tax nga gën a xam ne yow li nga xam dëgg la li nga am dëgg la nga gën cee jàpp gën cee ñooy surtout ci jamono ji nga xam ne islaam deram dafa yàqu mm-hmm. ñëpp jàpp nañ ne lislaam diiney fitna la diiney terrorisme la diiney diiney intolérance la te loolu loolu du lislaam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla joxee doole mu ànd ak hundred thousand people dugg Makka gi ñu ko génne woon lor ko fa mbugal fa ñi ko njëkk a rey fa ay taalibeem ba mu dugg màkk am doole ci seen kaw lu mu leen wax lan ngeen foog ne moom laay def ak yéen ñu ne ko only good lu baax rek ngay def ak ñun ndax mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax bàyyi mu ne mu ne leen uh, idhabu antuma tulaqa dem leen there is no blame mu ne waxu leen sax loo xam ne dañuy fàttaliku tooñ yi ñu ko defoon there is no blame on you leen wax mooy li yéen ci yàlla yu sa waxoon waxoon ay ay mbokkam bàyyi mu ne keroog bi ko yàlla teralee jox ko teraanga googu ak doole jooju dafa ruus ba sikki ñoom jël laal fas bi mu toog ndax am gàcce ci teraanga gi ko yàlla jox ak rus gi noonu yi rus ci kanamam dëgg-dëgg kooku booy ut doomu aadama ku mat ci fànn yëpp ku bëgg nit da da koy xool ci moom ba ci ñoo xam ne bokkuñu moom diine receive na bay receive ay chrétien ci biir jumaa am ñuy waxtaan ak discours ak moom ñuy weddi li muy wax muy dëgëral li muy wax waaye jéemut a xeex ak ñoom jéemu leen wax nañ sax ne bi bi célébrer seen masse jotee daf leen a bàyyi ñu célébrer ci jumaa jooju ana ban leçon de tolérance lañ gën a mën a am ci l'islam dañoo war a fexe ba message yu Europe nekk nit ñi xam image boobu noonu image boobu nga xam ne moom la moo moo nekk ci moo nekk ci l'islam moom it dundam yëpp loolu la gis nañ ni amoon na ay ñu ko bëgg loolu def ko bàyyi te duñ jullit docteur Kwame Nkrumah bu Ghana ba ko bàyyi di xam ci kaso la génnee bàyyi ñaanal ko mu nekk président yi Ghana dafa bëggoon Cheikh Ibrahim lool invite na ko Ghana ay yoon invite na ko sax invite président yu Russia euh, Brezhnev ak président ex Yougoslavie ñu dajeeg Cheikh Ibrahim di ko laaj ne ko àddina bi noo ko gisee ñun ñu ngi fi bokk nekk te bokkuñ ay diine bokkuñ ay belief naka la ñu war a mën a dundee une peace bàyyi ko benn exemple bi ne ko àddina bi is a global village. Mm-hmm. Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mu ne first time muy dégg di concept of global village. ci bàyyi la ko déggee ne ko am nañ penc mi mooy public arena public space boo xam ne ñoo ko bokk dañ faa war a dajee for the common good of people ñun ñëpp ñu dox ci lu ñuy jëriñ buñ paree foofu na ñu dellu ci suñuy intimacy dellu ci suñuy diine ak suñuy belief jullit moom xam na fan lay dellu mooy ci farate yi ak naas bàyyi mu ne ku ci maandu ku dul jullit nag moom moo gën a xam këram waa ji ne ko at least we are brothers during the day mais gis na loolu mooy mooy mooy mooy mbokkoo dëgg ndax doomu adama bi buy nit ngay nit rek ci gàmmu la ko bàyyi wax si buy nit ay ngay nit rek mbokk la mhm. buy jullit beneen àq ñëwaat na tegu ci mhm. buy dëkkandoor beneen àq ñëwaat na tegu ci kon dañoo war a may nit ñi jàmm ñi nga xam ne may nañu jàmm mhm. bàyyi mu ne lislaam julli daf ko symbolise boo tàmbalee julli da wax allahu akbar yàlla rek a màgg booy jeexal julli ne asalaamaaleykum mu ne lan lay firi boo jógee ci jàmm yàlla rek li ci topp mooy mayal ni ñu jàmm alquran def nañu yàlla terewu leen ci ñi nga xam ne xeexuñoo gi yéen génnewuñ leen ci seen i kër mm-hmm. ngeen baax ci ñoom te ngeen maanu ndax inna allaha yuhibbul muqsitin mm-hmm. yàlla dafa bëgg ñi nga xam ne dañoo maanu kon dara mënta dëggal ñu bokk te yow gëm-gëm nga gëm ne dañ leen war a rey bañ jeex nga gëm ne lislaam moom lislaam bàyyi mu ne bu ñu ci dindee yërmaande dara desatu ci diine yërmaande la ñu bokk jóg yow bilif sax bu dee bàyyi nañ la ci jàmm jëmuñ laa génn ci li nga ne laa ikraha fi diin la alquran wax there is no contention on religion kenn warta forcer kenn pour mu mu mu gëm ñun kenn soxlawuñu bàyyi bi ko nijaayu ko am kurma di ko wax ne kurma ni mu la bëggee wax ko mu tuub maanaam mhm. boo ko waxee dina tuub bàyyi ne ko déedéet lislaam soxlawul kurma kurma moom moo soxla lislaam du ma ko forcer ci mu tuub bu bëggee tuub rek dafay tuub mhm. relationship ak président Liberia ñoom famille Tolbe gis naa ay lettres yu ñu bindanteeg moom mu ne bàyyi pen bi nga ma mayoon maa ngi ko téye ba léegi man bi ma la joxoon ngir yàlla bu ko réeral maa ngi def sax mu ne mi ngi def picture bàyyi ci gannaaw ci gannaaw office am bi naka noonu gis nañu relation ci yi mu amoon nag yeneen président yi nga xam ne sax nekkuñ ay ay jullit ba ci biir Sénégal am na famille chrétienne yoo xam ne xaritam la ñu woon muy famille Joseph Turpin nekkoon nañ ay xaritam nekk ay ay ay kóllëreem nga xam ne noy googu nekk ci moom moom la xëccee nit ñi ci lislaam yonent bi daf ne yàlla daf maa jox jaase ak nooy mhm. ma gis ne nooy moo dàq dagg jaase <laughs> ma jàpp ci nooy bu rafet la mu ne yàlla dafa jox jaase jox ma nooy waaye nekk ca nooy moo dàq dagg jaase nooy googu la ko alquran tagee nee na fa bimaa rahmatin min allahi linta lahum wa law kunta fadlan ghaliza alqalbi lan faddu min hawlik ah, yonent bi yàlla daf ne ko nooy gi nekk ci yow moo tax nit ñi ñëw wër la di dugg ci lislaam boo xiisoon rek dañ lay romb dañ lay romb dem kon nañ fexe ba message islam boobu noonu ñu fexe ba xam ko te dëgg-dëgg li ñu nekk mooy tariqa yeeg tasawuf mooy mooy jàngale l'islam dëgg-dëgg parce que violence doo ko direct ci sa morom nit waaye da koy direct ci sa own self pour manqué manqué yi nekk ci yow nga jéem a correct sa bopp sa low self bi yi nga xam ne lu neex rek la lay wax bàyyi mu ne bakkan boo ko toppee moom ci ba mu yàlla la mhm. te alxuraan ko wax mu ne gis na gis nga koo xam ne dafa topp bakkanam def ko yàlla ba mu réeral ko parce que bakkan bi lu mu bëgg rek la bëgg ku ko jaamu la bëgg lu ko neex rek la bëgg nga def te yàlla loolu la soxla kon boo toppee bakkan bi yar bi nga yar bakkan bi violence bi nga war a dem jëmale ci keneen jëmale ko ci di sa bopp yar sa bopp loolu mooy tarixa loolu moo ko tax a jóg tëskiye la tudd mooy di purification of the of the soul loolu moo ñu dajale moo ñu booleeg sëriñ si moo indi message bi ba ñu fii ñu ngi ñaan yàlla yàlla jox ñu barkeeg màggal gàmm yàlla jox ñu barkeeb jokk mbokk ci barke guddi gi yàlla jox ñu barkeeb saafu ak nuyoo wante ak jokkoo ngir yàlla ah, yàlla loolu taw ko maa dalika alallaahi bi aziz ñu ngi waa Tijaaniya borom ak mbokki taalibe yi ñu fekk yëpp Moussa bi tee ngi nii di mbokk mu baax ci yàlla ñu ngi ñaan yàlla yàlla jox ñu ngërmaane Cheikh Ibrahim radiallahu mbaax gi ñuy def jëmale ko ci ñun tamit ñu ngi ñaan yàlla Euh, mu fay leen ko yàlla na bàyyi gërëm te dana gërëm ndax moom nee na al ihsaanu laa ujazihi bi nisyaan jëf ju rafet moom mu ne du ko fayee fàtte mukk te yéen a ñuy teral di ñu fonk ngir moom yàlla na ko gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah